antu ñu tàmbali ko ci bés bi euh, yitte ak njariñ ndax doomu aadama bu ne moom dafay góor góorlu ci li ko yitteel te it njariñ lay ut ci lépp loo xam ni dugg na ci lan moo ñu yitteel ak lan moo ñu jariñ loolu moom moo tax a jóg jotaay bi moo tax ñu nar fi indi ñoo xam ni dañu am xam-xam ci li ñu ne yéen xel da cee màcc ñu ñëw ngir leeral askan wi jokkoo ak askan wi jox leen ay dénkaay ay dénkaane ak i njàngale si as mbir yooyu nga xam ni moom moo yitteel askan wi beneen bi nag mooy njariñ lan moo ñu njariñ si leen lu ne am na lu ñu si mën a jariñ euh, dañ ci bëgg dalal it ñoo xam ne dañoo am yu ñu xalaat indi ko jëfee ko maanaam li tubaab bi di woowee initiative ñoo xam ni dañu jël initiative tooguñu rek di xaar di jàmbat ak di jooy ak di jooyantu waaye dañoo nàmm seen xel daas ko génne si loo xam ni ñëpp dinañ ko jariñoo euh, si loolu dinañ dalal tey soxna Khady Gaye soxna Khady moom ma nga fële ca yëmbal kilifa la fa waaye toogul rek bi mbir yi xawee kéemaane moom jóg na am xel yu mu indi ak yu mu jëfee tey jii dinañ ñëw leeral ñu ko waaye balaa Soxna Khady tey dañu ànd ak ñaari docteur ñaar ñoo xam seen xam-xam dafa màcc euh, kii di docteur euh, Cheikh bu Diop moom médecin généraliste la médecin généraliste mooy koo xam ni moom euh, si wàllum pajum docteur moom suñu borom da koo may mu mënee fu bari moom moo jiite hôpital bu Cambérène Euh, ànd si tamit ak docteur abu si docteur abu si moom psychiatre la koo xam ni xelu doomu aadama su feebaree moom da si bay waar te day bay waar si ngir xelu doomu aadama bañ a feebar ndax docteur bu ñu fàtte ni li ko gën a yitteel mooy nit ñi bañ a feebar bu demee ba feebar nag moom léegi mu def pexeem waaye fagaru moom moo gën faju loolu docteur yi saa su ne lañu koy wax docteur Abou Sy tamit moom moo jiitee lu ñu woowee cellule d'appui psychosocial bu ministère de la santé et de l'action sociale si wàllum mbas mii daal ñu moom mooy coronavirus bu ñuy wax euh, psychosocial nag moom mooy lépp loo xam ni dafa lëkkaloo diggante xelu doomu aadama ak ni muy dundee ak ni muy dundal ngir euh, mu gën a yéwén docteur Aboussi ñu ngi lay nuyu di la dalal di la ziar. waaw Mouhamed Tounkara ñoo ngi lay fay di la nuyu di nuyu euh, docteur Diop. di nuyu tamit mbooleem téléspectateur yi ñuy seetaan. docteur Cheikh Sadibou Diop yow tam ñu ngi lay nuyu di la dalal la ziar. alors maa ngi leen di nuyu tamit di la ziar bu baax sama xarit bi Tunkara di nuyu aussi sama xarit docteur si ñu gëjoon gisee di nuyu aussi téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan si émission bi nga xam ne am na solo lool. Euh, sunu ñi ñuy bàyyi xel ñëpp dañ leen di beral nuyoo spécial euh, nuyoo boo xam ne ñoom rek ñoom ñoo ko moom kenn ku nekk ca fa nga nekk si sa. Euh, si sa wàccuwaay ñu jox la ko euh, di ndokkeel ñëpp si weeru koor wi euh, di leen ñaanal suñ borom képp koo xam ne yaa ngi woor mu nangul la ko docteur Cheikh Sadibou Diop mhm. tey li ñu yitteel li yitteel askan wi ba ñu ñëpp gis nañ ko bu huit heures ñëpp war a fatu mhm. Euh, liggéey wàññeeku dem ak ñëw bi wàññeeku tey dem si benn euh, dëkk si réew mi jafe euh, loolu yitteel doomu aadama yi muy feebar boobu ñuy tuddee coronavirus coronavirus mooy doomu jàngoro boobu di indi feebar bi te fi mu toll nii tubaab yi di ko wax covid 19 covid 19 nag moom daanaka ay baatu anglais la yoo xam ni covid pour euh, Covid pour coronavirus. deux bi pour disease disease mooy feebar si anglais. Euh, dix neuf nag moom mooy dàqantal euh, deux mille dix neuf gi nga xam ne diggante novembre ak décembre ci la feebar bi euh, tàmmalee feeñ fële sa sa Chine. docteur Diop sa xam-xam màcc si wàllum fajum doctor mhm. feebar bi. Mhm. moom lan la. waaw daanaka bon def naa ni ni nga ko placé lu am solo la mooy que Covid 19 euh, depuis donc novembre décembre la lañ ko commencé seetlu bi ñu ko dee seetlu aussi ñu nemmeeku ko si euh, réew mu ñu wax Chine donc loolu virus la virus nag dafa di doomu jàngoro boo xamee ni comme yeneen façon yi bokkuñu. am na yoo xam ne dañu leen wax bactéries yi am na yoo xam ni parasite la ñuy tuddee yeneen yi mycose donc moom mu tudd boppam ñu tuddee ko virus virus nag euh, maanaam doomu jàngoro boo xam ne la euh, amagul loo xam ni dañ koy euh, xaymaa ni bu la dalee dafa am garab sàngam moo la koy faja virus garab amagul garab. waaw garab boo xam ni na naam dinañ wax ni garab bi bu la dalee garab bi moo la koy faj. amul benn virus bu am garab fu mu toll nii. bon ba léegi amaguñu en tout cas virus yoo xam ni am na garab spécifique boo xam ni dinañ ni virus bi bii moo ngeen généralement liñ garab yi ñuy jël day limiter progression garab kii bi. docteur bàyyi la bàyyi la nga yeggale waaye dañuy fàttali rek ne. soj virus moom moo koy joxe. waaw li ñuy waxee soj. Euh, grippe grippe. grippe moo koy joxe sida tamit. sida aussi virus moo koy joxe. Mhm. mais li ñu seetlu si virus yooyu yëpp li koy méngale mooy que virus yooyu yëpp amul daanaka comme yeneen doomu jàngoro yi nga xam ne ni par exemple bu dee bactérie dañ naan antibiotique sàngam moo koy faj parce que dañ koy euh, sélectionné boo waxee ni feebar bi moo koy kii bi garab bi moo koy euh, wéral virus moom amul loolu dafa di euh, garab yi koy faj daanaka daf koy limité dafay limité progression bi donc dafay tax mu wàcce taux bi virus bi ci biir yaram bi loolu lu am solo la ci wàllu virus donc pour dire que nii donc bi ñu ko nemmeekoo depuis lors donc Chine donc si la commencé law donc mu law euh, yeneen dëkk yi ñëw ba si suñu dëkk bi particulièrement Sénégal ni ni ñu koy nemmeekoo nag si ni ñu nemmeeko woon si yeneen dëkk yëpp mooy que dafa daan ñëwee ak yaram bu tàng ak ay sëkkat loolu la ñu ko nemmeeko woon bu mu daan commencé donc euh, loolu la ñu commencé woon définition de cas mais mala euh, au fur à mesure on s'est rendu compte que tollu rek si loolu léegi am na ñetti weer daanaka yoo xamee ni léegi mën nañu seetlu ni feebar bi mën na dal fu nekk si si sa yaram donc mën na commencer par ay feebaru sëkkët mën na commencer yaram bu tàng mais tamit mën na commencer même par ay feebaru yax yu metti wala même ay biir yu daw wala ngay wàccu wala yooyu yëpp mën na si nekk ba am na yoo xam ne sax mën na am ba attaqué par exemple système nerveux ba nga xam ni mën na la jox ay feebar si wàllu boobu donc pour wane ni feebar bi mën na laal léegi yaram bi yëpp donc dootul feebar boo xam wàllu. sëkkat la wala wàllu socc la wala wàllu yaram wu tàng kese. ah docteur li ngay wax bi ngi euh, wane ni euh, mbir mi dafa gën a yaatu. gën a yaatu li euh, ñu ko fagoon bon fàtte rek ni que Sénégal. Mm-hmm. feebar bi mu fi tàmbalee ak léegi am na lu tollook juróom-ñaari téeméer. Mm-hmm. ak ñaar fukk ak juróom-benn nit doomu aadama yu ko yu ko am moom feebar bi mm-hmm. am na ñaari téeméer. ak juróom-ñetti fukk ak ñeenti nit yoo xam ni wér nañ bi ñu ko amee te euh, yàlla leen suñu borom yërëm am na juróom-ñeenti nit yoo xam ni génn génnagum nañ si àdduna euh, docteur loolu am na waaw loolu am na loolu euh, docteur te feebar bi dañ gis ne mhm. moom dañuy wax ni ni mu tàmmalee Chine mhm. doomu jàngoro ba nekk Chine ak bi nekk Europe ak bi nekk Amérique ak bi nekk fii Sénégal euh, Afrique mhm. du doon benn dafay am ay mutation li li tubaab di wax mutation ay maanaam daal day soppaliku moom doomu jàngoro bi tout à fait moom la ñuy wax ci affaire virus yi donc virus bi ci biir cellule bi lay lay développé wu donc bu dee développé ci biir cellule bi donc euh, ci lay multiplier wu donc multiplication yi mu def nag euh, souvent seetlu nañ ni ci dëkk yi mu commencé ba egsi fii seetlu ni dafay soppeeku soppeeku si mode ni muy multiplier wu wala ni mu bindoo si boppam donc loolu mooy jafe-jafe wu virus bi ñuy wax corona coronavirus actuellement. Euh, docteur yow yaa jiite hôpital bu Cambérène. Mm-hmm. fii ci Ndakaaru euh, foofu ndax feebaru feeñ na fa. waaw daanaka ba démb bi may wax si yenn sa naataango yi ma ma doon interviewé donc ba léegi amaguñu cas boo xamee ni am na suspect bu ñu confirmé. si biir Cambérène donc ñi fa dépisté yëpp. pour le moment amaguñu cas boo xamee ni. yéen yéen foofu ca hôpitalu Cambérène. Mhm. Euh, ndax am ngeen jumtukaay yi tax ngeen mën a xam ndax nit ki am na feebar bi wala déet. waaw dañu dañu tënku si wàllu li ñuy wax euh, recommandation au ministère de la santé donc parce que politique bi c'est seen une politique qui s'est définie suivant un système donc euh, si wàllu si système boobu nag la tënku mooy que bu ñu amee ay cas yoo xam ne dafa am cas suspect bu fa ñëwee. dañuy déclencher aussitôt la procédure mooy ñu defal malade bi cas ñu defal ko isolement ensuite euh, appeler le district informer le district pour que ñu indi ñu jumtuwaay yoo xam ne dinañ dem pour defal ko prélèvement ensuite malade bi bu ñu ko defee prélèvement ba keroog ñuy joxe résultat yi donc si salle d'isolement boobu nga xam ne dañ ko déjee pour moom foofu lañ koy teg. yéen am ngeen salle boo xam ni ku ñu maanaam njort ne. waaw feebar da nga am dañ la fay jël denc la fa nga nekk fa. absolument donc fukki fan ñeent. non non pas fukki fan ak ñeent ñun bu ñu la dencee bu dee dañu def prélèvement bi suba bi bu ñu jotee résultat bi bu dee dañu ni woon dafa am prélèvement bu positif aussitôt dafa am ñoo xam ne dañu leen di jël si pour yóbbu leen fi ñuy wax centre de traitement donc ñun hôpitalu Cambérène nekkagul centre de traitement. Mhm. c' est un centre de dépistage boo xamee ni boo fa ñëwee. dañ lay dépister et cas yi fay ñëw yëpp. Mhm. Euh, en ce moment maa ngi remercier aussi personnel yi fa nekk au moins am nañu euh, xarañte boo xamee ni tamit duñ ko. lawal si dëkk bi par exemple tiital nit ñi wala dara donc cas suspect bi bu ñu la yóbboo si salle d'isolement bi dafa am koo xamee ni mooy toppatoo lool donc kooku kay toppatoo tamit dafay am euh, nu muy doxale ba nga xamee ni euh, malaat bi dina fa nekk ba ñu jot résultat bi ba malaat bi génn te kenn du xam pratiquement que ni cas bu suspect la. Euh, feebar bi ñuy woowee Covid 19 te doomu jàngoro boobu tudd coronavirus di ko joxe. lu toll ak ñetti million si ay doomu aadama am nañ ko. si àdduna bi bi mu tàmbaleek léegi te lu tolloog ñaari téeméeri junni si ay doomu aadama génn nañ si àdduna euh, sunu réew bëri nañ ñun ñoo xam ne ñu nga féete ay Italie ay Espagne ay France ay Amérique mm-hmm. euh, ñoo ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen massawu ndax feebar bi euh, boor yooyu la gën a jaxe docteur loolu tamit dama bëggoon nga indi si leeral mm-hmm. feebar bi bi mu tàmbaleek léegi diggante Chine Euh, Chine moom nee nañ ñi fa faatu bëriwul noonu tolloog mm-hmm. euh, ñetti ñeenti junni bari na sax. Mm-hmm. waaye boo ko xoolee ak euh, mbir mi nu mu naa se ba Amérique tey lu tollook fukki junni génn nañ fa juróom fukki junni mm-hmm. nit génn nañ fa àdduna. dañu gis ne feebar bi ñi diggante Europe Amérique ñoom la gën a sonal lu tax loolu. waaw déjà bon benn jàngat bi ma si am. bon moom laay tuddee les atouts peut-être que mm, scientifiques yi ou bien les chercheurs actuellement doivent euh, s'y pencher peut-être que on a la chance d'avoir une population jeune hein ça c'est un des atouts euh, et que feebar bi tamit du parce que bu la duggee rek daf lay gàllankoor aussitôt parce que ni ñu koy xalaatee mooy que dañuy defe ni feebar bi bu la duggee rek tey suba dina la war a yóbbu réanimation wala déet non non am na ñoo xamante ni am nañu système immunitaire lu ñu wax loo xamante day Euh, aar sa yaram boo xamee ni di dëgg sa dëgër laay boobu nga yoree mooy tax ba feebar bi bu lu duggee tamit du la sonal lool donc mooy tax ñuy gis ni ñuy wax porteur asymptomatique yi. koo xam ni yor na feebar bi mais amul benn mandarga benn mandarga à peut-être mu ni dafay sëkkët wala yaramam di metti wala mu ni yaramam day tàng mandarga boobu moo koy indi woon hôpital ñu xalaat loolu ñun tamit ñu def dépistage bi defal ko test bi mu positif loolu généralement bu dee yu yooyu la cas yu ñuy wax cas simple la généralement bu ñu leen yóbboo ci centre de traitement yi traitement li ñuy wax traitement symptomatique mooy li mu doon wax ci njëlbeen bi. Hmm. virus bi dafa di feebar boo xamee ni doo ñëw rek ñu ni la nangam garab moom ngay jël ba ña nangami fan nga wér non dañ lay jox. garab bu dee dangay ngay ñu jox la garabu sëkkat bu dee ngay yaram symptômes yi la ñuy traité maanaam mandarga yi parce que garab gi feebar bi si boppam amagul garab goo xam ne moom lañ ko moom lañ ko moom ko jagleel pour di faj voilà euh, docteur Aboussi euh, li docteur Diop wax est-ce que am na loo si bëgg dolli balaa ñuy dugg yow si li ngay def <coughs> merci beaucoup donc euh, peut-être félicité ko ci dispositif bi mu mettre en place au niveau de de l'hôpital parce que loolu tamit la ñuy xaar ci hôpitaux yi mooy déjà euh, comme ni mu ko waxee euh, nekk des éléments de dépistage nga xam ne nii ku ñëw ci hôpitaux yi nga xam ne bu ñu la suspecté automatiquement hôpital bi mettre en place benn dispositive boo xam ne dina permettre ñu mën la jël en charge. mais tollooguñu fu ñëpp di demee noonu ci hôpital bi ci hôpitaux yëpp pour ñu dépister ñu volontairement. déet loolu xam nga mooy li ñuy commencé di. di wax mooy ci côté dépistage communautaire mais kooku àgguñ ci loolu encore il faut ñu xam ne c'est une décision politique euh, ay scientifique yi comité ñoo ngi en ñoo ngi réfléchir di ci di ci di ci xalaat di ci wax tamit position di ko ci jox euh, président la république yi nga xam ne moom mooy abilité pour orienter la politique donc mu jaarale ko ci loxo ministre de la santé. parce que da nga wax lu am solo léeg-léeg euh, li tubaab bi di wax rek il faut avoir les moyens de sa politique tamit. su fekkee da nga am benn doxalin boo boo teg il faut nga am jumtukaay yi nga xam ni ñoom ñoo lay gunge. parce que tey même réew yu ñu ñu ëpp doole fuuf ñoom ñëpp dem si hôpitaux yi pour ñu dépister leen sax ñoom defuñu ko. waaw xam nga li nga wax noonu dafa am solo. parce que xam nga fii feebar bi toll damay faral di wax ne euh, Covid dafa am ñaari aspect aspect bu njëkk moom mooy feebaru nit ki loolu moom léegi ñëpp a gis nañ ko xam nañ ne feebar bi ndaam liñ ci doon wax yu bëri ci côté rey ak yooyu ci muy faat demeewul noonu naam sax comme li may wax même benn faat sax doy na waar mhm. kenn ku ñàkk ba xanam ci feebar doy na waar mhm. sànqant wala juróom-ñeent wante tamit comme nañ ci doon wax mhm. nombre bañ ci doon wax amu ci kooku mooy li may mën a tuddee l' aspect individuel de maladie hmm. mais mu am beneen aspect boo xam ne nii dafa am solo mooy l'aspect national de la maladie mooy tey jii euh, ñu toll ci benn situation boo xam ne nii li may wax moom mooy c'est le système de santé moom moo war a nekk fas à la maladie Covid te bu ñu déterminer bu ñu tegee benn politique de santé boo xam ne nii suñ système de santé ànduñu ko. Hmm. su boobaa suñ système de santé day daanu. Ah, day daanu te loolu gënul ci. ci ci niñ ko mën a xalaatee. parce que comme ni nga ko waxee ak ni ko docteur Diop waxee virus bi dafay attaquer nit ki di ko entre ay symptômes mais bu nekkee système de santé bi dañ koy jël détourné ko. Hmm. teg ko ci fajum virus bi te ñeneen ñi doon feebar ñoo ngi feebar. ñii am tension ñoo ngi am tension ñii am diabète ñoo ngi am diabète ñii AVC ñoo ngi am AVC ñii am feebaru xel ñoo ngi am feebaru xel war a dem hôpital ba nga xam ne léegi bu ñu système bi demee ba déborder ba nga xam ne ñooñu mënatuñ dem hôpital. Hmm. su boobaa nekkul Covid mooy gaañ. wante kon yeneen feebar yi ñooy gaañ. Euh, docteur Abou Sy wax nga lu ama am solo mooy euh, àdduna. Euh, yemul rek si feebar bi euh, docteur vraiment li nga wax ni dafa am solo parce que am nañ am na ñeneen ñu am yeneen feebar yoo xam ni te loolu dal na yenn réew yi sax dañoo jël seen système yëpp euh, jël mbir mi hmm. tënk ko si feebar bi ba ñeneen ñi ñoom tamit loru docteur leeral ñu yow kuréel gi nga jiite si ministère de la de la santé et de l'action sociale lan la waaw kuréel boobu bi feebar bi commencé ci Chine mu am ay doomu Sénégal yu nekkoon Chine nekk ay étudiant Wuhan euh, Wuhan donc euh, ñu amoon une décision politique boo xam ne nii dañu waxoon ne Sénégal daf leen yi bàyyi foofu wante bàyyi leen foofu du sàgg du tekki ne duñ def dara. Mm-hmm. ci la monsieur le ministre daal di ñuy woo daal di ñuy laaj lu ci suñu xalaat ñu wax ko mu daal di ñuy instruire jox ñu ordre na nañ teg cellule bi pour accompagner psychologiquement. nit xale yu nekk Chine ñu nekkoon ay xale yu am fulla ak fayda. di jokkoo ñoom yéen ngeen nekk fii di jokkook euh, ak ñoom foofu si di leen dalal dalal seen xel. Mhm. wante tamit di dalal xel tamit seen i waajur yi nekkoon Sénégal di waxtaan ak ñoom am na sax ñu ciy dem di leen seeti def te kon li ñuy tuddee visite à domicile. boobu feebar bi egsee gul woon Sénégal. Mhm. bi feebar bi egsee Sénégal euh, monsieur le ministre daal di féddal lim ñu waxoon nañu nag léegi teg leen cellule bi jël Sénégal yi nga xam ne dañoo am feebar wala ñi nga xam ne dañu nekk en relation ak feebar bi mooy cas contact yi kaa guéri yi cas euh, euh, positif yi ak seen njaboot liggéey ba ngeen doon def ak waa xale ya nekkoon ci nag seen njaboot ngeen continuer ko def hmm. want tamit toftal ci tamit liggéey bi nga xam ne ñoo nga war a topp ñi nekk ci système de santé mooy waa kër docteur ñi nga xam ne ñooy faj maladie ñu gis ne yeneen dëkk yi bi fa Covid ñëwee dem nañ ba sonn ñu bëri ci eh, ci personnel bi am na sax ay card de suicide am na ñoo xam ne dañoo sonn ba di jooy di def ay vidéo di jooy monsieur le ministre ne ñooñu moom loolu bëggu ko donc ci njalbeen mën ñu kon waa kër docteur yéen boole naa seen mission yi ma jox ngeen leen di suivre di leen xool donc ñun tamit ñu nekk ci loolu. ah mais docteur yéen seen waar yu yaatu na di. effectivement. Ah? effectivement parce loolu ñaata ngeen yéen ci cellule boobu. waaw xam nga nag euh, bi muy commencé dañoo comme bi ñu ministre bi monsieur le ministre waxee loolu dañoo waaxu dem ci chef di ñi nga xam ne ñoo ŋànk psychiatrie tey ak psychologie ci Sénégal mooy euh, professeur Mouhamad Habib Thiam bu psychiatrie muy professeur Omar Ndoye bu Fann ak professeur Tabar Silla bu hôpital principal ñu leen di jaajëfal parce que bi ñu demee ndox ci ñoom dem ci ñoom dañoo mettre à disposition seen personnel ñu daal di def tënk benn première cellule boo xam ne nii cellule bi moo ngi nekk à Dakar basé ou ministère la santé di woote suba ba ngoon mu nekk ay xale yu am jom euh, nekk ay psychiatre ay psychologue ay travailleurs sociaux assistants sociaux nombre bi amul solo ah mais docteur dañu bëgg xam rek ñun waxuñu ne am na solo xam nga stratégie bi ñu teg léegi yéen ñaata ngeen doo leen ko mën wax déet maa xam nga première phase bi laa lay wax mooy première phase mooy ñi nga xam ne dañoo activé xam nga système da nga koy dañ koy teg ñi ñi ñuy activer première groupe bi ñu activer ñu commencé liggéey ñu commencé liggéey mais beneen am beneen groupe boo xam ne dañ ko mettre en en en veille mooy aujourd'hui tout psychiatre ak seen psychologue ak assistants sociaux ak travailleurs sociaux yu nekk Sénégal yëpp mën nañ leen activer parce que loolu moo tax sax ci troisième phase bi cellule bi dafa dem monsieur le ministre dem ba ñu léegi li ngeen def Dakar laa bëgg ngeen def ko ci fukk ak ñeent région yëpp mm-hmm. donc tey jii fukk ak région yi région bu ci nekk installé nañ benn cellule boo xam ne nii ñi ko ŋànk mooy ñi ma cité woon sànq. te yow mii yow yaay euh, coordonné lépp euh, léegi euh, docteur fi mu toll nii am na ñoo xam ni am nañ feebar bi Sénégal wax nañ ko léegi am na ñoo xam ni wér nañ si am na ñoo xam ni génn nañ si àdduna yéen tey ñi nga xam ne wér nañ ba pare. parce que dafa mel ni ñun ñi feebar rek la ñuy wax ak ñi gaañu mais ñi wér tamit am nañ solo. Hmm. est-ce que ñooñu ñoom am na yéen liggéey boo xam ne dangeen koy def ak ñoom ngir ñoom ñuy ñu ñu ñu yeet ñu yeete di yeewaate. waaw sa question bi nga posé dafa am solo parce que feebaru Covid bi dañoo woon beneen aspect mooy ñun waa Kër Docteur dañoo tàmmoon bu ñu fajee nit ba mu wér bu ñu ko indee ba ci buntu hôpital bi ñu bàyyi ko wante feebar bi woon ñu yeneen aspect. mooy des aspects de vulnérabilité mooy que ne dem nañ faj nit ba mu war a génn nit ko amul yére bu mu war a sol. Hmm. dem nañ faj nit ki ba mu génn këram disponible gul hmm. parce que dañu confiné waa njabootam wala dañu dañu dañu décontaminé gul këram. ci ci loolu la cellule bi dem lëkkaloo ak action sociale direction générale de l'action sociale ministère la santé pour jël affaire yi en charge. pour hmm. jël nga xam ne léegi fu mu nekk ni cellule bi. am na ay malade sax yoo xam ne dañoo génn te seen kër disponible gul cellule bi ak lëkkaloo ak euh, direction générale action sociale dañ leen jël en charge ba seen kër disponible. ah voilà ah, loolu de am na solo. voilà loolu mosu fi am. waaw loolu moom. Euh, comme li may wax rek loolu yëpp ah. ci politique. Euh, ci politiku ministère de la santé la. Ah. nga xam ne ministre de la santé moom moo ñu ñi nga xam ne ni faj nañ leen ñu wér ñu génn waruñu leen bàyyi ci biti. Mm-hmm. war nañ leen topp. ba keroog ñuy duggaat seen kër. macha allah non docteur loolu dafa am solo moom loolu loolu moom vraiment ñu ngi koy euh, ñu ngi koy rafetlu baax mais mais léegi yéen euh, ñi génn àdduna tey. Euh, juróom-ñeent lañ fii kenn ku nekk si ñooñu yéen da ngeen di dem si kër yi jaale yóbbu fa njaal gunge leen tamit. waaw xam nga comme que dañoo nekk ci période épidémie donc ñun ñooy digale nañ wàññi. dox bi ñëw yi uh-huh. kon ñun tamit dañuy wàññi dox bi. wante képp koo xam ne nii Euh, ñàkk nga ci ab nit ñu lay ñu lay jaale. Hmm. lépp li nga xam ni taxaw bi ñu xam ne commencé woon nañ ko ci ba nga xam ne nii avant ngay ñëw ci centre de ba mu ñëw ci centre bi ba mu génn àdduna dañuy jël téléphone parce que ñun appel téléphonique la ñuy def. Hmm. dañuy jël téléphone woote seen njaboot xool leen jaal leen wante tamit am des euh, benn rôle conseil mhm. par rapport ak l'autorité mhm. ne ko ah ñun kat bu ñu xalaatoon bu ñu defee lii bu ñu defee lii dina tax njaboot bi nga xam ne ñoo des ci ginnaaw deuil bi su ko li ñuy tuddee deuil fekk mhm. deuil bi mën a gën a yomb te loolu tamit dañ ci euh, dox ay jéego yu am solo ba tax ne lépp loo xam ne nii gis nañ buñ ko defee dina tax deuil bi mën a yomb ci njaboot bi dañ ci taxaw teem euh, docteur loolu dafa am solo surtout nag euh, feebar bi bu bu dalee nit ki ba mu génn àdduna euh, léeg-léeg buñ koy denc ñëpp duñu mën a dem. waaw xam nga loolu dafa xaw na diis daal ñun xamuñu loolu. waaw tey nga ni la sa mbokk ku la jege lool génn na àdduna mais munoo sax dem si rob bi docteur loolu lu xaw a diis la nag. effectivement loolu moom moo tax tamit cellule bi di continuer leen soutenir mais loolu comme ne processus de deuil la. xam nga peut dëy moom nekkul benn affaire boo xam ne ci benn fan wala ñaari fan ci ni koy jàngee ci tubaab dafay dem ba ci juróom-benn weer ci la ñuy doog a mën a dugg ci cadre deuil pathologie waaw wante ci biir juróom-benn weer yi nit ki ak euh, ña ki euh, euh, dee bi nu mu metti metti metti ak nit ki lu ñu tëkkoo takkoo takkoo takkoo gëm nañ ne buñ ko accompagner def ci lañ ca war a def loolu dina dina dina am solo xam nga li nga sa question sax li mu gën a am solo mooy que ne ñun sur le plan culturel. Mm-hmm. ak sur le plan social. ci suñu wàllu cosaan ak aada sunu dundu ah, sunu nekkin ah, sunu dunduwaay dafa am ay rite dafa am ay rite yoo xam ne nii day symboliser la perte. Mm-hmm. xam nga xam ne nii sa famille daf koy def. moo tax loolu dañuy am rôle de conseil ba nga xam ne dañ dem taxaw ci autorité bi ne ko ah waaw léegi ñun kat xalaat nañu lii mënta am wante lii bu amee dina tax njaboot bi mën a euh, vivre. dëy bi dans de meilleures conditions. est-ce que euh, loolu moo tax euh, xam-xam euh, xam am solo lool ndax docteur Aboussi li mu wax ni xam-xam bu wér la lu mu jàng la lu muy dund la te lu muy jëfe la Bakar Karaaju Diagne da ñuy may benn benn lenn lu ñuy seetaan lu ñuy xool si wàllum feebar bi balaa ñuy dikkaat si jotaay bi yitte ak njëriñ ak docteur Cheikh bu Diop ak. Euh, docteur Aboussi ñu wax ñu nag léegi njariñ yi nga xam ne ñun mën nañ koo jëlee ci euh, mbas mi dal ñu. La quarantaine pour ces patients. C'est ici que les le prélèvement, le test de dépistage du Covid-19. Dans cette pièce isolée, les malades attendent et se reposent. À l'extérieur, l'équipe se désinfecte. À l'hôpital la banlieue dakaroise, tout est en place pour l'accueil des malades. Les mesures mais le matériel de protection tend à manquer. Pour le moment, les équipes gèrent. Donc tout patient qui vient à l'hôpital devra systématiquement passer par la salle de tri où il sera, euh, des constats seront prises, un petit interrogatoire pour décider qu'il aille voir son médecin traitant, ou bien qu'il aille au niveau des urgences, ou bien qu'on l'isole tout simplement si c'est un cas suspect. Le ministère de la Santé a demandé que le nombre de tests augmente. Les derniers chiffres officiels montrent une accélération du rythme des contaminations, plus de 300 nouveaux cas en une semaine. À ce jour, plus de 730 malades confirmés, 440 patients sous traitement à travers le pays, de quoi redouter une intensification de l'épidémie. En Afrique, on pense que peut-être que c'est le climat qui nous protège un peu, peut-être qu'il y a une certaine humidité et tout ce que se dit, les vaccina la vaccination contre le BCG. Mais moi, personnellement, comme on voit que le nombre de cas augmente progressivement, mais lentement, j'ai peur que, que ça s'étende, mais plus lentement qu'ailleurs. Depuis plus d'une semaine, le port du masque est obligatoire dans les services publics, les transports, les commerces. En cette période de ramadan, le couvre-feu s'installe sur le pays chaque soir à partir de 20h et interdiction est faite de circuler entre des régions. Des mesures pas toujours rigoureusement respectées, le virus continue de se propager. delloo njukkal euh, Babacar Karajo Diagne euh, moom moo nekk tey si machine bi euh, sunu ñawkat tamit Pape si Diallo <coughs> waa njiit création fii ci HLM Nimzat moom tam delloo ko njukkal docteur Cheikh Sadibou Diop tey suñu tënkal njariñ yi nga xam ne mën nañ ko jëlee si mbas mi docteur dina xaw a doy waar ñuy wax mbas ak njariñ mm-hmm. eh, man dama jàpp ne léeg mbir su la dalee soo moytul di nga ñàkk ñaari yoon su fekkee yow tiis bi rek nga jël di dem ak moom waaye nan nga mën a jariñoo si mbir mi ba yow euh, jamono ji nga taxawee bi fi mbir mi nee sax maanaam nga am si am si njariñ waaye it bu mbir mi jeexee it njariñ li di di dem waaw mais c'est loolu moom lu am solo la si njàngat bi ma si def mooy que actuellement mbas mi daf ñu won ñaari mbir mooy un Euh, aspect euh, li may tuddee sanitaire cest dire que nit ñi ni ñu ni ñu góor góorloo ci seen wàllu wér-gu-yaram en fait ni ni ni waa ministère de la santé ak ñi nga xamee ni ñooy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram li ñu def plan yi ñu teg yépp pour que nit ñi topp ci pour mbas bi gaaw fi jóge mooy li ñuy tuddee mesure barrière fànk ko da donc loolu benn njariñ boo xamee ne la je pense que au delà de mbas bi war nañ ko étendre mooy lavage des mains loo xamee ni si sunu. ak ak gel yi gel waaw sunu aada la woon. Mm-hmm. déjà la raxasu. Mm-hmm. dafa di woon sunu aada boo xamee ni vraiment dafa mel ni dañ ko bàyyi woon. alors que donc revenir na waat donc lu am solo la loo xamee ni maa ngi koy wax si sunu hôpital ñun avant mbas bi di ñëw donc ñii liggéey foofu yëpp formé nañ leen si lavage des mains. Mm-hmm. te boo demee si yenn structure de santé yi certainement. pour ñu xam lan moo doon lavage de main il a fallu que mbas bi egsi fi hmm. donc loolu aussi lu am njëriñ la loo xamee ni je pense que tax na hôpital yëpp fépp foo dem léegi xam nañu lan mooy lavage de main ba ci kër yi ba si xale yu ndaw yi. raxas loxo dafa solo mais raxas loxo ak ndox ak saabu. mais raxas loxo tamit gis nañu ak gel yi. par exemple waa Val d'Afrique seen gel yi ñuy defar yooyu. Euh, yooyu am na solo. oui tout à fait gel yi aussi am na solo mais comme ni ñuy wax tamit euh, boo amul euh, gel yi. Hmm. Euh, c'est important surtout dans les structures de santé donc euh, fi nga xamee ni surtout microbes yeeg bactéries yooyu foofu la ñuy dajaloo donc gel yi c'est important pour que mu mën a gi mais boo ko amul lavage des mains comme ni mu wax si sunu aada la mu sa nag donc euh, loolu dañ ko war a systématiser au la de mbas bi ñu mën ko continuer heureusement également que maintenant si programme san kii communautaire yi léegi dangay dem sax si quartier yi ñu ngi développer ay ba nga xam ne koñ bu nekk ñu ngi fay teg récipients yu mel noonu et avec benn li ñuy wax ingéniosité extraordinaire parce que pas plus tard qu'hier j'ai parcouru Cambérène mais j'ai vu dans chaque quartier ay xale yoo xam ne ni def nañ fa euh, ay édifices ay édicules yoo xam ne ni vraiment même ndox bi sax euh, fi muy jaar euh, du tax du taa du def dara donc loolu pour wane nii donc ingéniosité mm. xale yi si loolu donc njariñ boobu am na si solo parce que ça a développé benn ingéniosité au niveau de la communauté kon yow gis nga daal si wàllum euh, set gi. si set bi waaw surtout wàllum raxas loxo. loxo bi surtout euh, waaw ñu ñu si góor bu baax. mais aussi nit ñaa ngi dawal seen xel. dawal seen xalaat. Mhm. ngir xool euh, yan yan yan. saafara yan saafara la mën a gën a yokk si wàll boobu. donc au delà de cet aspect sanitaire beneen aspect mooy aussi solidarité. Hmm. waaw solidarité bi jàppalante bi. loolu aussi c'est extrêmement important parce que euh, depuis bi mbas bi commencé dugg da ngay gis ni de façon spontanée nit ñi ñooy ñëwal seen bopp. Mhm. indi seen accompagnement muy si structure de santé bi wala muy si commité locale bi ñu installé. Mhm. wala muy euh, dimbalante si si. si gox goxaan yi donc ku nekk di dimbali sa morom da ngay gis ku jóge beneen gox ñëw mhm. dimbali waa gox sangam si nangam ak nangam donc loolu aussi c'est extrêmement important euh, vraiment euh, jàngat bu am solo ñaar te docteur gis nañ ko fi euh, tey bi ñu feebar bi commencé ñu ne nit ñi dañuy ñëw indi seen Euh, participation kenn ku nekk li nga man gis nañ ñu fi génne milliards gis nañ ñu fi génne ay millions euh, ba ministère de la santé ñoom euh, jaajafal ñoom ak ministère de de de l'économie jaajëfal sénégalais yi si xaalis boobu nga xam ni ak ndimbal yooyu nga xam ni ñu ngi koy indi ndimbal yooyu sax moo tax ñu ne léegi léegi nañ fi dalal soxna Khady Gaye mu wan moom yan initiative la jël si loolu docteur Abou yow tey yan njariñ tey yow merci man def naa ne njëriñ bi njëkk bi may ci wax moom mooy que ne loolu sama expérience personnel la mooy que dama gis ne chaque jour boo waxee ñu ne moyen amul te man ci li ma gis euh, moyen ñoo ngi fi mm-hmm. am na ay moyen mais c'est que seulement dañ kaa mënta mobiliser dañoo tàmmul liggéey ensemble mm-hmm. pour rationaliser parce que tey jii boo xoolee ni ma koy tënkee rek moom mooy boo xoolee feebar bi bu mu duggee ak léegi li ñu mobiliser ñëpp. Hmm. tout le dispositif humain euh, matériel financier bi ñu bi ñu jël ko en un temps record jël ko teg en place pour mën a euh, daan feebar bi mu may wan ne man ma ma jàngat ci ne kon même bu feebar bi passé bu demee. expérience bi nga xam ne ñoo ngi koy def nii parce que tey jii y a am na ay barrières yoo xam ne daanu na. Mhm. parce que bi feebar bi jógee ñëpp dañoo bàyyi la ngànkoon ñu gis muy wàllu politique muy wàllu diine muy wàllu société ku nekk bàyyi na ki ñu ànd doon benn loolu je pense que loolu mooy premier pas pour le développement. Mhm. ñu gis ne même sax ñi ñi doon critiquer. sax dañuy ñëw rangé wu pour contribuer def une des critiques même bu nekk ñoom ngi continuer critique sax mais day doon des critiques constructives ma foog ne loolu ay jàngat la yoo xam ne nii war nañ ko jàngat boobu feebar bi passe ñu capitaliser ko. est-ce que mais ma gis tamit benn affaire mooy que ne feebar bi wane na tamit loo xam ne insouciance ci dëkk bi. insouciance mooy euh, sàggante. sàggante parce que boo xoolee nit ñi biñ jëlee risques yi ñuy jël ci fan yu mujj yi. pour dem uti mburu mu nekk man ba ma ko njëkkee gis dafa maa def ab tiit parce que ma ne est-ce que sama mbokk séeréer yi nga xam ne bëgg nañ mburu lool est-ce que utam mburu jar nañu jël yenn risques yi pour wàllante mais ne xal pulaar yi de wala de séeréer ah, séeréer waaw <laughs> bokk ñoom mbiram fay yi <laughs> donc ma gis ne donc loolu mu nekk ne kon am na éducation boo xam ne war nañ kaa tegaat boo xam ne nii war nañoo delluwaat éduqué waat nit ñi yeewaat leen ci yenn yi ba nga xam ne ni loolu dina tax comme ni ma koy faral di waxee. Covid bi daa war a yokk tissu social bi. Mhm. nu muy parce que ndimbalte comme ni ko docteur Diop wax solidarité. bu ni moom mooy tissu social bi day rapproché wu. donc fu mu nekk nii tey jii war nañoo jàngat jàngat boo xam ne nii bu fi feebar bi jógee incha allah loolu nga xam ne tissu social bi gën nañ kaa ràbb. ñu continuer ci. est-ce que euh, vraiment jàngat yu am solo euh, xam-xam rek moom mooy euh, xam-xam moom mooy alal euh, xale yi xale yi ñuy seetaan leen di fàttali rek ne docteur Cheikh Sadou Diop mii. dafa jàng ba doon docteur moom moo jiite hôpital bu Cambérène docteur Abou Sy moom jàng ba doon psychiatre psychiatre mooy ki nga xam ni moom xelu doomu aadama hmm. moom moo ko yitteel mu xel mi wér ak xel mi ñu faj ko tamit euh, xale yi na ngeen xool si ñu mel nii euh, ngir ëllëg yéen it ngeen di doon ay docteur si wàllum euh, ñun dañoo soxla ay docteur si fànn yëpp si wàllum xol wàllum xel wàllum xalaat wàllum xëtër wàllum wàllum res wàllum tànk wàllum loxo wàllum mbopp yëpp yëpp dañ si soxla ay docteur hmm. te yéen xale yi tey yéen yaa la war a jàng ngir doon docteur yi fajee euh, ëllëg euh, Bakar Karajo Diagne da ñuy may benn euh, xaarandi si wàllu publicité ñu xool waa Val d'Afrique lan la ñuy wax balaa ñu dikkaat si jotaay bi ak Khady Gaye Khady wan ñu tey moom yan initiative la jël moom xaarul kenn toogul di jooy toogul di jooyantu toogul di jàmbat mais dafa jël ay initiative mobiliser ay mbiram yooyu tey dina ñëw léegi leeralal ñu ko. mbokki Sénégal ñu dëkkee réew mi ak bitim réew 2STV dellu si waat na ak yéen indi leen émission bu mag muy nawoon nawoon ci ngor nawoon ci jom nawoon ci njub nawoon ci jomb jomb émission boobu tudd nawoon nag mi ngi am alxemes bu nekk bu 22h30 jotee en direct lay doon ci 2STV kan moo koy anime Khadim Samb teg leen seen baaraam ma dem te ñëw c'est ça réalité alhamdulillahi rabbil alamin mbokk julliti Sénégal yëpp seen émission suukaru koor ni koy defee at bu ne di leen gunge di leen wéttali ci weeru koor gi ñuy nafaraat tuuti suñu wàllu diine incha allahu taala ren tamit dañu ñëw fas yéene àndaat ak jullit yëpp après journal 20 bu soobee yàlla seen xarit seen soppe tafsir Abdourahmane Gaye ànd ak Chérif Mamine Haydara wéttali Sénégal yëpp baarakallahu Chérif Mamine Haydara Haydara Karara yal na yàlla fay la yal na yàlla sàmm la yokk sa wér kon mbokki jullit yi ñun ñëpp ñoo ko déggandoo seen émission seen suukaru koor incha allah fii ci 2 lay amee bu ñu duggee ci koor gi kon ñu ngi woo mbokk yëpp macha allah comme ni ñu ko daan defee di ko kal ci 2S incha allah lépp loo xam ne lu yitteel wàllu àdduna fi mu toll tey la lu ciy gis-gisu lislaam incha allah dinañ ko indi pour waxtaane ko Chérif Mamine moo koy def feggoo ak doomu ndeyam tafsir Abdourahmane Gueye fii ci 2S incha allah après journal bu 20h wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara bu baax a baax te di leen baalu àq itam yàlla dogal itam ñu ngi am yéene ci weer wu sell wi nga xamee ne moom la ñu dëgmal mu di shahru ramadan al mubarak fas yéene di waxtaan ak yéen ci ay tomb yu bëree bëri li ko tàmbalee altine talaata àllarba ba alxames bis bu nekk ci bu 15 heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu ci bëccëg jàpp ñeenti waxtu ñu fas yéene ñëw fii teg fi ay boroomi xam-xam waxtaan ci wàllu koor gi itam ci ay tomb yoo xam ni ak yeneen yu bees yoo xam ni bëgg nañ ko ci yokk itam fa tabaarakallaahu gannaaw loolu itam bu nga ñu toppee altine ba alxames 15h ba 16h weer weeru sell wi nga xam ne ci la yàlla wàccee alxuraan lan leen di digal rek mooy li ñuy digal suñu bopp te mooy ñu topp yi tamit ci aaru gi ci wopp ji nga xam ne moo di Covid 19 bi fas yéene itam taxaw rek ci déglu ndigal yi nga xame ne waa kër docteur joxe nañ ko ngir ñu aaru mucc ci tawat ji wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. laa sama biir waañ mën na la partager ak yéen lépp loo xamante ne nii dina jàppale jeeg ci biir këram. alors tu tombes xaw ma sax lan laa war a togg xam nga naa ne jaaraay def yi bii mooy ban moom. ñëw jaar yow dama a bëgg léegi dessert bi fu mu toll. cum ak a yuuxu une minute jaajëfal Bakar Karajo jaañ ak mbooleemu équipe euh, yi ñuy àndal yëpp si jotaay bi euh, yitte ak njëriñ euh, sunu ñawkat moom mooy Pape Si Diallo njiit création fii ci HLM Nimzat moom tam di ko delloo njukkal yitte ak njëriñ moom li ko yitteel bokk na si doomi réew mi ñoo xam ne ñoom tooguñu di xaar tooguñu di jàmbat tooguñu di jooy ñoom dañu def li tubaab bi di wax jël initiative mooy dañu màccal seen xel dañu nàmm seen xel dañu daa seen xel génne si lenn yemuñu si génne ko de waaye dañ koo jëfee soxna Khady gay mii moom euh, kilifa la fële ca yëmbal di femme de développement euh, bu ñu bu ñu ràññee euh, soxna Khady moom si loolu lay dox am yoo xam ni da ko da ko xalaat jëfe ko moo tax tey mu ñëw fii soxna Khady di la nuyu di la dalal la ziar. waaw monsieur Tounkara maa ngi lay nuyu. di la ziar di la baalu àq si weeru koor bi. di baalu sénégalais yëpp. macha allah waaw di di nuyu tamit sénégalais yëpp. ak waa yëmbal yëpp di nuyu waa département Pikine. di nuyu waa yëmbal. macha allah aywa euh, soxna Khady nag da sama wóllëre bu yàgg boo xam ne euh, vraiment suñu borom dañoo boole euh, mu ma daal ne moom sàng la moom <clears throat> ñawkat la. Laat. moom haute couture lay def maanaam daal du ñëw fla fla ak euh, como como waaye moom it initiative bu mu jël jëfee ko moom moo ko fi indi laat di la nuyu da daal la ziar. Hmm, maa ngi lay fay euh, Tunkara di fay euh, di nuyu aussi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan à travers la la télévision 2STV di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp. Khady yow sa initiative bi wax ñu lan la. waaw maa ngi nuyu sama. frère bi ma bokkal plateau. Abdoulahat maa ngi lay nuyu. di la ci initiative yi ngay jël. donc ñun suñu initiative yaatu na. mais li waral tey euh, suñu suñu teewaayu fii tey mooy dafa am benn association bi nga xam ne muy nekk ay à côté muy attaque toujours en action association toujours en action donc ñoom day ñëwoon seet si ma biñ ma seetsee ñu ma doon ñaan gel pour distribuer ci quartier bi. Mm-hmm. Euh, ma rafetlu ko. man ne naa leen may ñi may ma dans deux jours man tam mën ci xalaat après si laa leen wooyee man leen comme que euh, tey situation bi toll na fii nañ ñi def beneen beneen forme bu gën a yaatu ko euh, gel kese. Mhm. parce que am na fi ay bonne volonté yoo xam ni am nañ xaalis mais mënuñu mënuñu xamuñu nu ñuy joxee wala mënuñu ko joxee nii di ko bazarder mhm. peut-être ñooñu bu ñu demee seet seeti leen waxtaan ak ñoom ñu jël li ñu am ak ñun tamit li ñu am ñu boole ko jox ko ñi nga xam ne tey. ay ay ay ay ay suñu ay dëkkandoo lañ yow nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw ak ñoo xam ñu ngi doon liggéey te mënutuñu liggéey ak ñi doon jaay mënutuñoo jaay. Hmm. looloo tax ñun tamit ñu dugg ci population bi waxtaan ak ñoom dajale li ñu am pour suñu paree ñu delloowaat ko ci askan bi. kon yow da ngeen dem. Hmm. Euh, si biir nit ñi. Hmm. Euh, ñi am ak ñi amul ñëpp kenn ku nekk na fëgg sa nafaxa. génne li si ne. ñaata ngeen dajale. waaw xam nga bi ñu bi ñu waxtaanee ba d'accord ci 10h noonu noonu rek dañuy dem gis chef de village wax ko projet bi mu d'accord si jël xaalisam ni li mooy sama participation daal ñuy boole nag yeneen bonne volonté yoo xam ne ñu ngi ñu ngi si ñu ngi si biir réew mi ñu boole ak ñun tam ñun xam pour mën a gën a am loo xam ne dinañ ci mën a gën a yaatal ci loolu ñu amoon euh, deux tonnes ceeb. ak euh, céréales kii bu nekk am nañ ci chance sachet am nañ cere 100 am nañ araw 100 am nañ ba cinq kii yëpp mat am nañ ay savon am nañu ay gel am nañ fa ay diwlin am nañ fa ay suukar ak un million 80 mille hmm. biñ waaw bi ñu xoolee ñu xam ni xaalis bi mënoo ko jox nit ñi noonu hmm. te tamit boo gëndee ay diwlin du matee fi ñu bëgg a yegg démb ngeen jënd 3 tonnes ñu jënd ko ñun jaay ñu ko neuf cent quarante mille dèjà li ñu am nañ cinq tonnes léegi. cinq tonnes ceeb. cinq tonnes ceeb nañ ñu mi ngi mi ngi stocké foofu parce que ñun dañoo bëggoon suñu premier initiative mooy bu président joxe ba pare. Mhm. xam nga maire yi la koy jox. maire jox ko délégué de quartier yi délégué quartier délégué de quartier distribué ko mais du woon mat population bi parce que fii kenn amul lu mat. Mhm. ñun nag ñu ni kon du mat. te dañuy frustré nit ñi ak suñu dëkkuwaay bi day am kër yu mag yoo xam day am ay dix famille mhm. bu ñuy amee ñi amuñu dañuy frustré wala wala benn famille am beneen famille bi si à côté amul ñoom tamit dañ leen di frustré mhm. ñu ne ñun suñu amee dañuy dañuy xaar bu état distribué ba pare ñun ñu xool ñi amul ñu jox leen ak ñi ñu jox ñu yor famille bu mag te li ñu leen jox doyul ñu dolli leen. Euh, mais euh, soxna xar yi da nga wax lu am solo. Mhm. mooy fii kenn amu fi lu mat. kenn mënul matal lépp. du état du borom kër. du chef de village du chef de quartier. kenn amul lu mat. suñu borom rek am lu mat. loolu benn la ñaar bi nag. mooy yow nga ni man dagel naa cinq tonnes ceeb. te cinq tonnes woowu. si biir askan wi ma dëkk. fa la war a delluwaat. mais tey xoolal. bu quartier bu nekk. kenn ku nekk ne woon ci quartier bi rek mu am benn bonne volonté bu mel ni Khady Gaye ne man duma toog rek dinaa dajale cinq tonnes ceeb kii ne dix tonnes ceeb kii ne un une tonne ceeb mais bu yàggee dinañ gis ni que ndekete ñun ah ñun mën nañ jàppalante. te kenn ku nekk mën na mën na bay waar. Euh, soxna Khady loolu du ñu def rek lu dul ñaan suñu borom mu barkeel ko parce que nag affaire bi li si am solo du doon yow dajale nga 1000 tonnes ceeb dajale nga 50 tonnes ceeb. mais yow volonté bi nga am yéene bi nga am. ak jëf jooju lu mu tuuti tuuti rek bu ko suñu borom barkelee. Euh, mun a dem fu sari laxaat yow tamit euh, laxaat si haute couture lay euh, lay yëngu haute couture bu ñu koy dégg mooy koo xam ne moom wàllum ñaw moom du si cuune da koo jàng da koo xam li muy ñaw tamit fu kaw la fu kawe lay jëm. Euh, te njëkk yi it léeg-léeg euh, du yomb loolu euh, laxaat loolooy haute couture wala. <laughs> bon man moom damay wax juste que ni je suis designer de mode. Mm-hmm. loolu laa jàngi et tout donc ci biir loolu am na haute couture am na prêt à porter de luxe am na prêt à porter. Euh, consommation de masse. grand public euh, waaw man nag euh, je suis plutôt ci deux yi maanaam prêt à boo xam ne de luxe lay nekk parce que nekkuñu ko industrialisé wuñ ko. beneen bi ci topp aussi mooy sur mesure. donc ki nga xam ne dafay ñëw on prend ses mesures ñu defaral ko. Euh, toni boo xam ne nii dafa méngoog euh, mesure yi méngoo aussi ak ak la personne en tant que telle. Euh, laaxaat ma fi toogee rek damay fàttaliku aw jàkk laa jàkk vraiment. sama jigéen di ko di ko doole ñu laaxaat wax ñu yow sa initiative. bon tout d'abord damay féliciter ñi nga xam ne déjà ñoom ñi ngi ci bokk ci xeex bi. lu ci mel ni sama système bi nga xam ne maa ngi jàkkaarloog moom dégg naa li mu wax aussi c'est je trouve que à saluer et c'est très pertinente. Euh, man euh, li nga xam ne man euh, yàlla moom foofu la ma féetale muy ñaw bi bi nga xamee ne peut-être mbas bi dugg na ci ci réew bi dama xool les autres pays yi nga xam ne nii peut-être ñoom jot na leen a dal ma gis les designers yi fa nekk ñoom naka la participer activement ci ci ci ci xeex bi Eh, dama ne eh, bu fekkente ne ñoom ñoo ko mën asamaak ñun ñi nga xam ne dañu yar ci solidarité yar ñu ci euh, partage yar ñu ci aussi euh, ku nekk li mu am daf koy bokk ak moromam bi nga xam ne amul. Euh, ma xool ne eh, ci wàll ñaw laa nekk donc li nga xamoon ne mën na naa ko def muy produire des masques masques yooyu aussi bu ma koy produire du ma ko produire n'importe comment avec ne wala aussi n'importe avec n'importe quel tissu. donc il fallait faire des investigations il fallait faire des études préalables yoo xam ne ni doon na ma mën a permettre à ce que ma mën a maîtriser patron bi nga xam ne moom la ñuy utiliser euh, pour dagg ko beneen bi ci topp aussi les matières yi nga xam ne ni mooy les matériaux yu ñu war a utiliser pour mën a confectionner carrément euh, masque bi pour mu mën a jariñ ki nga xam ne ci moom ci loxoom lay tàbbi. loolu tax ma ma des sama ay recherche ba dem euh, dajeeg benn document boo xam ne AFNOR ñoom ñoo ko. Euh, loolu mooy association française pour la normalisation ñoom ñooy defar normes yi. normes yeeg yooyu donc ci seen biir euh, document bi ci laa gis euh, naka la Euh, agencer les les les matières c'est-à-dire coton bi nga xam ne dañ koy utiliser moom lañ préconiser ak euh, le polyester bi nga xam ne aussi moom la ñuy def ci diggante ñaari doublure bi ak euh, dessus masque bi pour que mu mën a gérer benn filtre foofu. donc waaw mm-hmm. donc ma dem def sa xool li nga xam ne amoon naa ko pour moment boobu muy coton bi polyester bi nga xam ne d'habitude du ma koy utiliser parce que c'est une matière boo xam ne nii nekkul lu agréable en contact avec la peau. ma dem euh, xool ci magasin yi ma am ma jënd ko euh, def ci lu mat 500 euh, masques moom laa nekkoon doon ko distribuer gratuitement. macha allah bi nga xamee ne loolu jeex na aussi bu luy continuer parce que j'ai vu que ni d'autres personnes. ñu ngi continué woon doon laaj. kon 500 masques yi moom dem na yàgg na boobu jeex na man jot naa sama wàll. Ah, vraiment masques yu masques masques yu yànj yu rafet. léegi ginnaaw juróomi téeméeri masques yooyu nga defar maye ko dafa am yeneen yoo bëgg defaraat. waaye bon maa ngi continuer doon defar maa ngi continuer defar mais est-ce que da am objectif si euh, lim bi nga bëgg non non lim bi moom mën naa wax que sama objectif romb naa ko parce que je m'étais dit que ni ba ma koy commencer xaw ma woon ne eh, ampleur bi lay am donc je m'étais dit que dama dem euh, juste defar benn 200 masque 300 pour jox ko sama ay entrées et tout. mais xam nga bouche à oreille. dafay am ñoo xam ne dañ ciy jot. Ah, te macha allah donc donc voilà les gens en demandent toujours. Mm. man aussi ma trouver un moyen de de d'investir encore sur les sur la production. fi mu toll nii est-ce que takkagum nga lim ñaata nga defaragum. takkuma lim franchement. li ko est-ce que da nga nar a continuer di dem di defar rek wala benn moment da ngay taxaw. non non fekk ñun dañuy ñaan yàlla fi ñu toll suñu sañoon suba masque yi jeex kenn bañ a tëdd soxla masque ba di ko produire. mais comme feebar bi mi ngi fi te xamuñu kañ lay jeex aussi on ne peut pas euh, automatiquement nangam foofu laay. te yow xaaroo si euh, dërëm xaaroo si kenn xaaroo si jaajëf yow daal da ngay def. rek non non xaaruma ci kenn donc beneen a continuer euh, construction mooy que ya a des entreprises yoo xam ne dañ nekk sur sur place ñoom ñoom ñoo ma commandé. Mhm. donc bi ma commandé aussi dama ko dama leen ko jaay dama ko defar jaay leen ko donc xaalis bi nga xam ne dama koy waat foofu moom laa nekk di ko réinvestir. ah macha allah macha allah ah. eh, gis nga euh, suñu boroom moom léeg-léeg euh, su fekkee nit ki am na yéene bu rafet yàlla mun na ko si fekk ndax moom <clears throat> ba muy tàmbali. Euh, xalaatul woon jaay masque yi waaye am na ñoo xam ne dañ ko ni léegi nag jaay ñu ko te léegi xaalis boobu mu si am da siy kon ni defar yeneen masque ngir euh, jëriñ euh, askan wi parce que tamit euh, Sénégal du ñëpp a mën a jënd masque loolu moom lu loolu leer la te bu ñëpp mënee jënd masque bu ñëpp mënoon jënd masque sax du ñëpp ñoo mën a jënd masque yu baax yi effectivement te moom comme ni mu ko waxee dafa gëstu xool masque yi benn norme la ñu war a topp parce que du masque yëpp ñoo ñàkk si ay norme mm-hmm. di ko joxee loolu laxaat suñ borom rek moom moo yor sa fay mm-hmm. soxna Xadi mm-hmm. yow tey li nga bëgg jottali. Mhm. Euh, lan la. waaw li ma bëgg a jottali mooy ñu ñu am benn Sénégal bi nga xam ne au moins am na ay jeunes yu xalaat parce que ñun yaay yi yàgg nañoo xalaat yàgg nañ ci social. def nañ politique def nañ théâtre xam nañ art danañ am nañ métier parce que ñun ay coiffeuse lañ am naa complexe boo xam ne nii day former ay ay ay nit couture coiffure restauration donc ñu am nañ expérience mais li ñu bëgg a mooy jeunes yi mhm. tey li ma gën a neex ba tax motiver ma ba ma gën a jóg mooy jeunes yi xaaruñu ma dem ma dem contacter leen pour ñu ñëw président bi ak secrétaire général ñoo ñëw contacter ma loolu moo ma animé dama jóg ànd ak ñoom def porta porte boobu pour mën a pour mën a pour mën a wut lii nga xam ne ut nañ ko te atteindre dëgguñu suñu objectif mm, parce que li ñu bëgg mooy nit ñi au moins ñu toog confiné total mm-hmm. nit nag pour nga mën a confiance totale il faut nga jox ko lu mu mën a toog kon état su joxee ñu mel ni ñun joxe na ñeneen joxe nu am na ko joxe. kenn ku ci nekk quartier ba nga nekk nga nga gérer quartier wala zone ba nga nekk ña fa nekk ci ay responsable nekk fa ay kilifa ay kilifa diine ay sëriñ ay ay ay entreprise ya fa nekk ñu mën a contribuer kenn ku ci nekk fa nga nekk su ko defee bu ñu confiné kenn du mer. mais mënuñu confiné nit ñi nii rek ci ceeb kese. parce que ceeb kese am na lu muy àndal. donc ñun suñu objectif. mooy ñu jàppale askan bi kon président de la république lii mu lancé ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm mooy wan na nit ñi yoon ak yi mel ni yéen def téléthon man danga ma gën a inspiré sa téléthon bi daf ma neex hmm. tak rek yéen commencé ngeen def téléthon bëgg jël affaire bi de de de sérieux pour nit ñi au moins ñu am idée parce que télé boo koy seetaan da war a am idée ci kii def émission ñu am idée ci yow ak ci ñu mel ni yow pour ñu mën a xam ni lii Sonko da def def ko ci poosam mais day wane pour ñeneen ñi mën ko xool mën koo def mën jëriñ askan bi. man bokk naa ci benn réseau boo xam ne les femmes face au développement. Hmm. fi mu ne nii nii nii bi nii moo tax financé gu ma sama ay femmes te ñoom dañuy former dañuy financer dañuy jàppale femmes yi jàppale jeunes yi même même même kilifa yi nga xam ne dañu retraité te nekkuñu ay paa yu yooyu sax dina leen financer. Hmm. pour ñu créer seen ay petite entreprise. te bëgg naa sax nga nga nga invité suñu présidente. di nuyu nag Ousseynou Ousseynou mi nga xam ne tey mooy président attaque parce que c'est pas facile nga nekk président nekk xale ngay am initiative initiative yu toll nii ngay naa dem seeti waa waa politique waa politique yi parce que en général dañuy xaw a bañ a bokk ak ñun liggéey. dañ a ragal nag xam nga policiers yi a bokk ak ñun liggéey du këf ñoom këfaate sax mais kenn ku ci nekk. Hmm. li ngay def il mu am lu koy fesal. parce que lu ñu daw lu ñu daw daw si ñun la mujjee. Hmm. parce que ñun am nañ buntu xam nañ yoon yi donc ñoom suñu rabattre vers ñun ñun nañ jóg ànd ñoom ñu liggéey bañ ci wut ay promotion. Euh, xale yooyu euh, xale yu am jom ñoom Ousseynou hmm. euh, mais waa kër gi ñoom Oumy Diop ñoo ñëpp leen euh, delloo njukkal euh, Khady Gaye moom euh, toogul rek di xaar te loolu lañ soxla nag képp koo xam ne yow am nga initiative boo xam ne jël nga ko ngay góor ngay jigéen ngay mag ngay ndaw ak initiative bu mu mënti nekk fii si yitte ak njëriñ soxla nañ la ngir nga ñëw séddoo ak nit ñi sa initiative ngir li Khady wax sànq yow nit mën na la seetaan tey inspiré parce que Khady lii bu ko xeeb de nit mën na toog këram ne ah waa mais Khady Gaye mii li mu def nii man tam Mm-hmm. amaana yéen yow tamit euh, di nga si bokk xadi li lii lu mu doon moom lii moom cadeau buñ la indil la mais dama may tuuti rek parce que commission bi six personnes lañ mm-hmm. man la ak président attaque ak Diall secrétaire général ak vice président euh, ak Momar Lay Diop ak Abdou Seck ñu nekk six personnes nit nag boo ànd ak ñoom di liggéey sooy gërëm na nga leen war a gërëm nga xam ni vraiment xale yi jàmbaar lañ amul werante amul xoloo amul xeex aywa yéen ñëpp soxna lii nag sakkadoo la euh, bon lii nag complexe Diel Diop moo la ko jox ci turu euh, suñu euh, suñu cadre bi nga xam ni dañ ko dañ koo formé te amul sax quinze jours. est-ce waa cadeau nag moom daanaka. Mm-hmm. ku loo ko defal rek moom jiitu na la si teraanga. te teraanga mm-hmm. moom. teraanga rek moom moo koy fay. Mm-hmm. Euh, yow tam soxna xar yi. Mm-hmm. Euh, gelu Val d'Afrique yi. Mm-hmm. bu soobee yàlla nañ la si jox yow tamit. nga am sa euh, nga am say gel. laat li nga buggoon tey yeggee askan bi lan la si wàllum initiative. bon li may yeggee al askan bi je pense que ni sax ñu bari ñu ngi ci nekk mooy que il faut que ñoom ñu solidaire entre eux. solidaire mooy jàppalante xàccandoo dóorandoo te bañ a xaar toujours ñuy xaar ñuy xaar état. parce que man dama naan état euh, tey jii ki nga dendal kër euh, bu toogoon di yooxu bala ko kenn wàllu si yow yaa war a njëkk a jug je pense que loolu bu fekkente ne ñëpp defe nañ ko ci seen xel ñi nga xam ne dañu bokk ay ñoo xam dañu bokk deret dañu bokk Euh, koñ dañu bokk quartier dañu bokk immeuble dañu bokk ñu jàppalante dimbalante ci ku nekk li mu mën mu bañ a xeeb donc parce que 5000 francs sax boo ko joxee nit dina ko mën a gérer pour ah, benn jour pour man euh, ndimbal kenn du ko xeeb euh, nañu fexe rek ba bu ñu koy def lenn rek tax muy yàlla ak bokk bi nga xam ne ni boole nañ ci te li ñu bokk mënuñu ko séddoo beneen bi ci topp aussi mu doon les histoires de masque ku ci nekk mi ngi defar et tout loolu yëpp baax na mais nañu fexe ba masque yi ñuy defar mu méngoo ak normes yi pour mu mën a jariñ askan bi parce que aussi am na fu muy toll dootul jariñ mais boobu moytuwul sax dafa amaat beneen leneen lu muy créer muy beneen maladie te loolu euh, je pense que ni euh, lu ñu war a éviter la te lu ñu mën a éviter la nañ ci góorgóorlu bu baax te bu mu weesoo yi yëpp aussi les Sénégalais les Africains ñuy xalaat di consommer local donc euh, que les jeunes puissent. Euh, trouver un moyen de développer ñoom li nga xam ne mooy tey jii ñun li ñu suñu borom defal ci suñu dëkk bi suñu continent bi ñuy mën di lekke fii solo fii defe lépp fii c'est important. laxaat chemise bi nga sol yaa ko ñëw. maa ko ñëw ah chemise bi rafet na. <laughs> bon euh, di nga ci am incha allah rabbi. macha allah euh, et puis couleur yi yi nga def bon Pape Si Diallo moom moo ñëw lii. loolu non c'est très joli. j'ai vu les. Eh, kii ni mu ni mu ni mu defee partie bi mais magnifique macha allah. macha allah eh, Khady moom tamit eh, day yëngu si ñëw Khady loo si chemise laxaat bi. bon chemise bi dafa dafa méngoo ak ñun laayee ni muy noir et blanc. macha allah kaala maam Baye laay gi. démb ak tey. muy noir et blanc boobu. Ah. nga fekk fi laayeen mu def noir et blanc. donc ñun yàlla boole nañu si ci ci ci kanamu suñu suñu suñu suñu suñu xarit. Ah, ah, xadi bu ñu jooyloo nag yow tamit <laughs> mais euh, laxaat danga wax lu am solo daal mooy euh, gis nga feebar bi euh, am na benn jàngat bu ñu si war a def ñun ñëpp mm-hmm. tey gis nañ ni mu sonalee tubaab yi mm-hmm. ñun sonaleewuñu noonu. waaw loolu daf ñu war a gën a xiital ñu gën a gëm suñu bopp xam ne am na lu mm-hmm. suñu borom may. loo xam ni may ñu ko ñeneen tey. Ah, en tout cas fii moom ku ci ku ci jàngat jëlewut jàngat pour man dootoo waaru ba ba ngay dee. parce que euh, lu nekk gis nañ ko. Mm-hmm. tey jii ñooñu ñoo daan fa gis seen dënn. di wax que ni ñoo gën a puissant. waaw tey jii ñoom ñooy gestu sax di xool dëkk yi nga xam ne ni ñoom lañ gënoon a xeeb di leen naw. parce que suñu borom moom comme li li mu li li nga xam ne moom la def mooy que li mu maye du doon benn. ku ci nekk daf lay may lii kële mu may ku nekk li mu ko may. mais ñun mu ñu may bu nu xeeb suñu cër. bu ñu ko xeeb te chaque jour ñu am am ci firnde. mais euh, laax da nga am solo parce que buur bu toll ni yàlla. Mhm. ponkal mu toll ni yàlla. Mhm. bu la mayee nga xeeb. c'est yow yaa xamul. Mhm. waaw parce que waaw ñàkk xam la parce que euh, suñu borom moom si moom. xarañteem bi mu àndal. Mhm. mooy dalay defal loo xam ne amaana yow xamuloo ko sax. parce que tey jii ñun euh, feebar bi tey ñoom tubaab yi dañ ñoo ñee lool. gis nga tey ñoom ñuy wax ay ay ay ay vingt mille morts. cinquante mille morts changer dinañ ko dañ koy def. maa ngi gis benn élément waa Canada. Mhm. waa Québec naa ñoom dañu jaaxle ndax ñoom ñoom ak Sénégal bi ñuy tàmbali. Mhm. daanaka ñoo yemoon. ay nit ñu feebar mais léegi ñoom ñu ngi si ay junni junni te Sénégal ñu ngi di lu néew ba pare ñi faatu tamit euh, hmm. doon doon lu néew te gis nañ ni feebar bi hmm. fii ci Afrique euh, fi la gën a euh, néewee doole te loolu beneen jàngat mooy Touba foog naa ni tey modèle bi ñu teg hmm. war nañ ko jàngal àdduna bi yëpp parce que fa la feebar bi tàmbalee mais ñu jékki-jékki demoon ba amatuñu benn cas loolu tey ñoom nan nañ ko gérer modèle boobu war nañ ko bind mhm. dem jàngal ko waa France mhm. waa Amérique mhm. waa Canada waa Angleterre waa itali waa Espagne ngir ñu xam mbas bu ñëwee nan lañ koy gérer bon foofu dama fiy damay damay damay rebondir pour dire que ni kilifa dafa am solo nit bu amee kilifa je pense que nii am na yu bëri yoo xam ne bu ñëwoon bëgg a dal ci kawam sax mën yàlla mën na ruus kilifa boobu. te je pense que ni modèle euh, tubaab bi loolu du dara lu dul discipline. dañ leen wax ñu toog seen kër toog seen kër suñu borom def na fa def na fa. est-ce que euh, laa da nga da nga wax lu am solo ndax euh, euh, ku amul kilifa léeg-léeg doon sa kilifa te bu jinne doonee sa kilifa rek soo moytul musiba dal la dañuy delloo njukkal suñu tey gan yi ñu fi am yëpp Khady looy looy tëjee. man la maa moon liste rek wax naa du kon naa ko bàyyi ak yow nga xool ñi nga xam ne dugal nañ seen xaalis di xool ba xam ñun fu ñu ko dugal parce que banlieue lañ nekk mhm. liste baa ngi fii naa la ko jox hmm. xam nga day dugg xam nga dañuy xaar mais yow naa la ko jox nga xool ko hmm. xam ni xaalis bi nii lañ ko amee ba ni mu jeexee may gërëm waa yëmbal yëpp di gërëm sénégalais yi hmm. mais di gërëm tamit deux s seen patron maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax parce que lii yombul non yow la ñuy euh, yow la ñuy gërëm euh, Khady Gaye parce que euh, yow moom dañuy am na benn Issa temps peste bi bi mu fi amee jamono mm-hmm. yooyu mm-hmm. loolu taxoon ñu def ndinga la mm-hmm. muy teen boobu am ndinga la moo fajoon ñi nga xam ne dañoo feebaroon ci peste bi kon nit ñi bu ñu feebaree nekk ay jullit nañ dem si jullit yi dolli ak docteur yi li ñu wax mën a am njariñ bu ñu xeeb dara bu ñu xeeb dara. waaw ñu fonk suñu kilifa diina yi. Mm. ñu xam ne li leen yàlla may te duñu nelaw rek yeewu am ko. est-ce que dañoo dañoo dañoo jaayante ak seen borom. ba yàlla may leen li ñu am tey. xari euh, nag dégg naa ni feebar bi. Mhm. Euh, jigéen ñi xeesal bu leen duggee da leen di gaañ de yow wax jigéen ñi xeesal. jigéen ñi xeesal bon da chaque jour nga laaj ma ko xam nga jigéen ñi tamit des fois seen seen dundin dafay dafay dafa metti xaju si sax ci plateau. wala xañu si plateau bi mais sax moom fekkonte ni plateau bi gën a yaatu la naa na ko mën décortiquer ndax ñi diw ndax ñi pudaru ndax ñi paseelu li tax li tax li tax li tax li tax moo tax ñoom doo leen mën a indexé di leen wax ni leen non non mais li leen li leen di mën nañ leen wax lu yaatu ci loolu ah. xeesal ala kuli aali mënul baax mm-hmm. chaque jour dama la koy wax mais nag des fois nit ki am na lu muy demee rek ñun jigéen ñi xamante nañ suñu biir daal. Mm. te waaw jigéen ñi xamante nañ suñu biir mais ñun góor ñi tamit xam nañ jigéen ñi. te dañ leen di wax bàyyi leen xeesal jigéen ñi xeesal da wax ci góor ñi xeesal. non d' accord oh, képp kuy ah. xeesal parce que parce que ñi euh, ñi seen xam-xam màcc si feebar euh, si feebar yi. Mm-hmm. Euh, nee nañ. ku xeesal léeg-léeg mm-hmm. feebar bi mën na la gën a gaaw a faagaagal euh, ndax fee ndax ndax xeesal mm-hmm. xam nga feebar bi système immunitaire maanaam li lay li lay aar sa biir mm-hmm. suñu borom def ko sa biir xeesal dafay dafay daan yooyu bu ko daanee nag feebar bi su ñëwee léeg du am lu la bi mooy troisième femme jigéen ñi bàyyi ce que euh, Khady delloo ko njukkal delloo laxaat ngay euh, njukkal delloo docteur Cheikh bu Diop ak docteur abu si ñi fi njëkkoon ñëw si yitte ak njëriñ yitte ak njëriñ di rek ko tax a jóg wax loo xam ni daf ñu yitteel lu mel nii feebar bi euh, lépp lu ñu yitteel rek ak ay njariñ yoo xam ne doomi réew mi ñoom ñoo jël ay initiative ñooñu lañ soxla képp ku am initiative rek na nga ñëw euh, ñu euh, séddoo ko fii. boole ko fii delloo njukkal Pape Si Diallo. njiit ah. création waa régie waa mboolem techniciens yi àndaloon ñëpp. delloo leen njukkal euh, jotaay bi bés bu ne la diggante altine ba àjjuma cinq heures demi bu tàmbalee ba euh, dëgmal juróom-ñaar juróom-ñaari waxtu si ngoon fii ci 2STV kon ba suba bu soobee yàlla wasalaam antiseptique Valda. ah li mooy sa xarit bi lay aar ci bépp jàngoro balaa ngay lekk. Germain Valda un réflexe de main propre pratique pour une.